الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اسرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bokk yi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel fu ñu mën a nekk rawatina bokk yi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel ci seen jotaay yóbbalu koor ñi ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di ndokkeel bu baax ci weer wi nga xam ne ci lañu nekk rawatina ci fan yu mujj yi nga xam ne jullit bu nekk war na cee feddali laxasaayam góor-góorlu ci bu baax a baax a baax a baax li nga xam ne noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ci fukk yi nga xam ne moo mujj ci weeru koor saa bu agsee ñu ne saddal mizara wa ayqada ahluhu da daan takk ba dëgër laxasaayu yokk lépp lu mu doon def waaye tam noonu la daan yeewee waa këram ñoom itam ñuy góorgóorlu mu soññ leen ci ñu fonk fukk yu mujj yooyu nga xamante ni itqun minan naar la sunu borom da ciy goreel di jële safara di yóbbu àjjana yàlla nañ ci yàlla boole mbokk yi xam ngeen ni seen yóbbalu koor tey tomb bi nga xam ne moom lañu bëgg a fàttalante ak yeen tomb la boo xam ne bu am solo la waaye tomb la itam boo xam ne bu lislaam fonk la soññee ci lool jox ko yitte alquraan dikk dëgëral ko waaye sunnus muhammad sallallahu alayhi wa dikk itam feddali loolu mbokk yi loolu mooy silatu rahim muy jokk ak bokk xam ngeen ni borom bi subhaanahu wa taala moom moo ñu wax ni wa ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila li ta'aarafu waaye inna akramakum inda allahi atqaakum borom bi subhaanahu wa taala moom moo ñu wax ni dama leen a def ay xeet def leen ay giir ak i waaye li kon mbokk yi ñu xam ne bokk lu am solo la ndax kullukum min aadam wa aadamu min turaab ñun ñépp xam nañ ni ñu ngi soqee ko ci sunu maam aadam waaye mbokk yi noonu nga xam ne noonu la ko wolof yi di waxe ne ak bokk alalu yàlla la loolu mooy li wér ndax kenn koo xamante nii ak fu waay mën bokk du sa coobare waaye coobarey borom bi ak dogalam la subhaanahu wa kon kenn ku nekk yàlla ci am ay sunu borom am na ci xeet wum la boole ñoo ñooñu nekk say bokk kon ñooñu danga leen a war a fonk danga leen a war a bàyyi xel bu baax a baax ngir borom bi subhaanahu wa taala moom moo la boole ci ñoom ñu doon say bokk kon nangu googu nga koy nangu dafa bokk ci gëm dogal yi kon mbokk yi mbokk di loo xamante ni dox ko ak wax ko dana tax nit ki jege sunu borom subhaanahu wa taala moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni képp koo xam ne bëgg nga sunu boroom defal la fan gudd yërëm la yaatal sa wërsëg def ca barke na ngay jokk ak bokk mbokk yi kon loolu war naa tax nit ku nekk jéem a góor góorlu ci li nga xamante ni moom mooy jokk ak bokk ndax borom bi subhaanahu wa taala moo wax ni wa ulul arxaami baaduhum awlaa bi baadin fi kitaabillaahi inna allaha bi kulli shay'in alim xam ngeen ni jokk ak bokk lu yàggoon la ci aljaahiliya laata lislaam di ñëw moo tax gis ngeen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko jibril dikkalee ba mu delluwaat ca kër ga ànd ak tiitaange fekk fa sunu yaay Khadija radiyallahu anha xibaar ko li nga xam ne moom la gis ba Khadija boole kook bàyyi tëxam boobu muy waraqata ibnu nawfal noonu ko boroom xilaasu zahab ba waxee muy seydi xaadi malik anhu وخنينيو جاءت لورقة تحكي ما رواه لها وقال لنا موسى موسى ذاك فابتسمي خديجة سكنت بالقول قائلة لم يغزك الله في الدارين لا تكني جاءت لورقة تحكي ما رواه لها وقال لنا موسى موسى ذاك فابتسمي من لك سيدي هذه مالك رضي الله عنه وخيك خلاف زهر nga xam ne war a waraqa mu bokkoon na ci ñi jàngoon téere yu jëkk ya moo tax mu ne ko woon yàllante woon ma fekkee jamono ji nga xam ne moom lañu lay génnee te say bokk ñu lay génne bu boobaa ma dimbali la keroog la mu arrixuuna yi wax ne yonent bi keroog la xam ne lii muy woote saa bu jëmee kaw ay bokkam daañu ko génnee waaye gis ngeen foofu sayyidatuna xadija radiyallahu anha li mu dalalee sallallahu alayhi wa sallam ne ko kallaa wallahi maa yuxzika allahu abada innaka la tasilu rahim naka yow yonent bi de ak lu mën a xew na nga dalal sa xel na nga am yaakaar te xam sunu borom dula la mukk ndax yow kat ngay jokk ak bokk radiyallahu anha mbokk yi déggal wax ju tedd jooju nga xam ne soxnaam moom la ko wax muy saydatna xadija dalal xelu yonent bi salaa salaam ne ko sunu borom du la gàcceel mukk ndax ngay jokk ak bokk mbokk yi xam ngeen ni kon jokk ak bokk lu am solo la moo tax bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni la yadxulul jannata qati u rahim yonent bi neena du dugg àjjana de ñu ne ko kaw kan yow yonent bi yàlla bi mu ne leen ki nga xam ne dafay dagg ak bokk xam ngeen ni bokk bi ko sun borom bindee dafa jooy ne ko yaa ngi may yóbbu ci àdduna te boo ma yóbboo danañ ma bokk sunu boroom na ko demal képp koo xamante ni jokk na la ma jokk ko waaye képp koo xamante ni dog na la ma dog ko kon mbokk yi jokk ak bokk lu ama am solo la moo tax abu ayub al ansaari bi mu dikkee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko yow yonent bi yàlla bi dama bëgg nga xibaar ma wala dama bëgg nga wax ma wax joo xam ne bu ma ko jëfee wala jëf joo xam ne bu ma ko jëfee danaa mën a tàbbi aljanna abu ayib loolu la laajoon yonent bi salaa salaam ne ko damaa bëgg nga xibaar ma jëf joo xam ne bu ma ko defee danaa dugg aljanna yonent bi ne ko dangay jaamu yàlla te doo ko bokkaaleeg dara dangay jaamu yàlla te bo te doo ko bokkaaleeg dara waaye dangay taxawal julli juróom te mbokk yi buñ nee dañuy dangay taxawal julli juróom mooy xeetu jàmm yàlla yépp dafay duggaale ci biir waaye yonent bi ne ko dangay génnee azaka waaye itam dangay jokk ak bokk moo tax jokk bokk lu am solo la moo tax yonent salaa salaam ne inna sadaqata alal miskini sadaqa wa ala zirrahimi sintaani sadaqatun wasila mbokk yi gis nga jokk bokk ni ma amee solo moo tax yonent bi salaa salaam nee na sarax bi nga xam ne yaa ngi koy sarax añi ñàkk ji muy miskin bi nee na loolu ab sarax la waaye nee na sarax bi nga xam ne danga koy sarax sa mbokk nag nee na sarax la ak jokk bokk mbokk yi jokk bokk lu am solo la incha allahu taala kon beneen yoon daañu dikk ci yi nga xam ne moom mooy defar ak bokk ak mbir yi nga xamante ni kenn ku nekk da ko war a wattandiku ngir dafay jaxase ak di yàq ak bokk yàlla na yàlla nangu sunuy koor def ci ñun ak dégg ak topp wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamullahi alaykum wa rahmatullahi